Sonko fi nga jàpp foofu la de bu leen sax may nopp ma xam naa ne man yaa ma gën a dee bu leen sax may nopp ay kan la jàppal en ak lu ñu ko def ak affaire yéen a ngeen ko def tu vois te fayantoo la yéen sax parce que bu leen fayan seen bor doo leen toog Sénégal bay boo ah, leen sax Sonko yi laa d'autres leen lu nekk naan ngi defante ak ay journalistes wala defu nii leen daal la wax deuk bi fay leen impôt yeen impôt moy sen problème parce que amuloon a fay impôt lolo waral ay 4 mois ngeen licencié ay 200 personnes kan da Bécaye mbay fum demo mo moom mo doon wax nan naan Waly euh na def social bu ñu yoy walé day emploi fictif lolo ndax té fam na ngay dakh 200 employés dé wax la ku ne nga jël ñi 800 ñi 600 mille pour noyer euh euh deux stv wala pour noyer Walf TV parce que bobu amoon nga ñom Macky Sall ak ay yeen tay ji mi ngi ni way dañ sa loxo lay nacc yeena bokkon bobu neex saf kaani fi wa donc Sénégal sunku jubbanti rek Sénégal dafa melni xalé bu rew bu nekkon ci kër papa am xaliss ñu bëgg mu xam ñu yóbbu ko kokki ko mooy kokki nag lu nak ko nag boo ko yóbboo kokki premier jour yi bu ko tam moy moy gaay yi nga gis ni ñom Babacar Fall ak ñom Ibou Fall borom xol yu bon ak dañuy faax guddi gi pour wat rejoindre maison familiale parce que ñu lool dañ son da dañ ni jëlaat da leen yobbu yóbbu kokki mu yoro par force jub jubal jubanti dekk bi du dëkku kat dekk bi du dëkku yaafuus dekk bi du dekk tek xel ku bokkoon ci nguur gele bu fekkon nga demal nga nga game over ruba dañ na senegal tay tegu ci ray bi par force mu leen ci dara sama waa ji wax na leen ko de lii du résistance embryon de résistance la parce que moom barricade nañu ko 52 jours dëkkul ko ci ay fukk na rek lépp te mosul daw nag si yaayam la dem Casamance namp ñëwaat gagné combat bi waaw c' pas le chemin qui est difficile mais c' est qui est le chemin tant que rek nekkoo ci yoon bi loolu amul lu ma lay wax Sonko yow la topp àdduna ak àllaaxira yow la la nag gis nga fil yi di ñëw dañuy yeesal suñu njëbal si législatif ñun dañu dellooti ci xërëm xam ne yàllaa fi ne benn yàlla moo am